nee na barki démb rek mi ngi koy wax. nee na daayira ba ku fi nekkal sëñ Tuubaa tànn moom ci moom la ko njëkk a gisee. muy njiit li kon nag daanaka nag ni daaw soriwut ak bi fi sëñ Aatu di bàyyi ko waaw ci janvier bi la woon waaw nee na ci janvier bi la woon. ndeysaan nee ci booba ci kër gi la ko fekk nee fii itam la ko mujjee jote téléphone booba mi ngi ci wéradi gi yàlla def itam euh, guddi gi mu ñibbee Touba euh, ci guddi googu la noppalu ndeysaan nee na boole gi ñu sëñ Touba boole lépp da cee feeñ jërëjëf nee na kon mi ngi sant bu baax di ñu gërëm ne li ñuy sëñ Modou Mountakha di tuddee Cheikh Mamadou Mountakha li mu ñuy tuddee ne dañuy soldaari Serigne Touba ci te waxtu wane ñu ngi koy gën a dëggal di ko gën a wane te képp koo xam ne Serigne Touba boole na ci liggéeyam bii mu dund koog yéen dina xam ne dara ñu lu Serigne Touba dund ñu dara lu Serigne Touba. waaye itam sëriñ Tuubaa gàttanu nañ ci ndax mi ngi bëgg a yàgg te saa yu xëyee muy gën a yokk parce que fii di gën a dëgër te li ci ëpp solo waxul jëf yi ñuy def ci biir yoon wi ak addi yi ñuy joxe te kenn mënuñu ci wettali gi ñuy wettali taalibe Sëriñ Tuubaa yi ci njàng mi ak ni ñu wéttalee ki fi nekkal Serigne Touba mais eh, loolu day na sëkk aw sas kon nag li ñuy waa kër Serigne Touba yi daan seereel ñu jiitu ñu tàmbalee ci Serigne Abdou Lahad ba ci Serigne Abdou Khadir ba ci Serigne Saliou ba ñu ci leen wuutu ci seen ginnaaw Serigne Mouhamadou Lamine Baara Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mii li ñu seereel seen yenn kàddu yooyu nga xam ne moom la ñu wax nee na moo ëpp doole suñ gunuy kàddu moom koy taw feex la rek kon nag mi ngi sant bu baax mbooloo mi njàng mii nag sëñ Touba rek lañ ciy dàkk ñun itam moom rek lañ ciy dàkk moom nag moo amuk pay Euh, moom waaw mu ñun ñu wax <laughs> ñun kay fay gi moom mooy mooy lii rek <laughs> ànd gi ànd yow nii ba ñëw ci yow waaw dàkk bëgg sëñ Tuubaa rek lañ jublu ci loolu yàlla nañ ci dajeeg tawfeex ak ngërëmam jërëjëf Mbakke ndax ngërëmal sëñ Tuubaa rek la ñuy sàkku rafet nañ ci njort bu baax jërëjëf sëñ Matar Jaxate mii ndeysaan alhamdulilah eh, fekk na suñuy ngërëm ba tey ci kanamu sëñ Saliou ndeysaan ne loolu doy na sëkk te tawfeex gi ci gën a yéeme muy daara jii ñu nekk muy daara Hizbut Tarqiyyah te ab Ablaye Diop jiite njàng mi am nañ tawfeex ndax jàng nañ ci kanamu sëñ Saliou ba tey te loolu kenn mënatu koo am kon loolu doy na sëkk tawfeex kon euh, sëñ Youssou itam bu ñu demee ñu sant ko bu baax ci jëwriñ daal yi li mu wax ah, ñun ñii nga xam ni ñun la dénk liggéey bi ñu ñu ko àndandoo di ko taxawu muy keroog ca tabaski ga wala kori ga bañ jógee ca jullikaay ga sëñ Moussa Nawel daa wax sëriñ bi ne ko bëgg moom mii mu doon yuusum aatu kon nag loolu nag mooy samaan wa taatan jërëjëf amin amin ci mbàkke amin yàlla ñu ko si tuwaa dimbalee ne yoon wi lépp kilifteef la ku jiitu rawatina moom ku bëri maslaa la waaye nag bu ñu ko ci topp li am solo na jiitu ñu topp ci ginnaawam te bañ a déngi déngi bañ a def ixtiraat def salabul ixtiyaar te xam ne Serigne Touba moo ñu ko tànnal jërëjëf Mbacke bu ñu ko Serigne Touba tànnalu toon itam ak njàmbaaram war na ko mën a yóbbu fu ne ndax dégg nañ Cheikh Mouhamadul Mountakha li mu ko seeral nee na fu suñu aatu àgg rek yuusu moo ne woon ci ginnaawam te mosu koo wut mosu koo bëgg mosu ta nekk cim xelam ba Serigne Touba jox ko kon nag day gën a jëm kanam ba faw alhamdulilah loolu tawféexi sëñ tubaa la <laughs> jërëjëf Mbacke yow nag ñu ngi ñaan nga yàgg fi loolu te wér sa taxawaay ñëpp gis nañ ko maanaam waa eh, sëñ Touba mboolem ku fi nekkal Seexul Xadim gis nañ taxawaay bi nga xam ne moom nga am ci sa diggante moom yoon wi sag bi ak ni ngay taxawoo liggéey bi ci fànn yëpp ku la gis rek dana gën a bëgg sëñ tubaa dana gën a yokk ak farlu dana gën a yokk góorgóorlu yàlla nga fi yàgg loolu te ànd ak wér jërëjëf Mbacke sant nañ bu wér waaw loolu fas nañ ko ci billaahi ndeysaan billaahi ndeysaan billaahi ndeysaan wér na amin amin amin amin amin jërëjëf sama sëriñ jërëjëf